bu ñuy wax man dama yàgg fi ba parlement macha allah du ma wax ñaata la fa dem lu muy wax nag laa xam ñii lu ñuy wax lan mën naa la ko yeggali premier ministre ba dafa def ay erreur juum na am na yoo xam ne bu ñu ko posé question daf ko war a teggi dafa war a bàyyi yeneen ministres yi c' est pas politique ça c' est pas bon boo nekk am na responsabilité xam ne boo ko yoree boo ko yoree muy moo ko yore muy ministre muy lu ma mën a doon il faut savoir parler avec les gens du nii du nii question de fond yi tey abordé nañu. man question de fond moo fi dëkk bi ni ñaa ngi rey électricité bi tali bi ban ban question de fond nga fi gis loo fi gis loo xam ne c'est dañ ko dañ ko tàyyi ñun chaque jour tu le lis ci journaux yi chaque jour nga déglu ko ci rajo yi chaque jour nga déglu ko ci télévision yi lan moo fi bees lii.